xarit ak am di jàmm yi militant militant sympathisant sympathisant comme ni ma ko waxee léegi tey bisu liggéey la waaye actualité obligeant ñëw ngeen bàyyi seen yitte fekkee point de presse bi nga xamante ni c'est un moment de communication boo xam ne ñun ñoo ko initié pour ñoo ko initié alors donc donc mu nekk moment de communication boo xam ne ñun ñoo ko initié pour mën a waxtaan ak sénégalais yi ci actualité politique bi fi am ci Sénégal may tàmbali sama kàddu di remercier journalistes yi nga xamante ni ñëw nañu en masse ma leen di gërëm ci loolu te seetlu naa ni fu ñu wootee dinañ ñëw ñoom ñëpp loolu ñu ngi leen ciy gërëm et seen taxawaay gannaaw ba ma sante ñi fi teew ñëpp. point de presse bi maa ngi tënk ci huit point peut-être wala sept points fi may tàmbalee mooy d'abord féliciter président de la république ci taxawaayam ci centenaire Seydi El Hadji Malick Sy yàlla na ko yàlla fayal di gërëm di delloo njukkal sunu xalif xalif général des Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour ci taxawaayam ci discours am waaye di beral sëriñ Serigne Maodo si Dabakh ci ay kàddoom yi mu yëkkati mu doon kàddu responsabilité di gërëm kilifa diine yëpp sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàgg bàyyi yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi déwér sëñ Maay Ñas xalifa diine yëpp waa kër maam Limaamu Laay kilifa diine yëpp ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla bàyyi leen fi waaye aussi di féliciter encore une fois président de la république ci participation mu some g nga xam ni am na retombée wóor boo xamante ni presque six cent milliards de dollars pour l'Afrique mu liggéeyal ko continent bi loolu dafay jaadu ñu taxaw si sant ko ci ñu féliciter ko ndax dégg naa ni participation am ci G7 boobu sax am na benn waaye boo ko doon ŋàññi démb waaye moom li ñu koy wax mooy nan naan classe te xam ne lan yi jeexagul gannaaw loolu ñu ngi remercier les forces de défense et de sécurité yi nga xamante ñoom ñoo téye gannaaw yàlla ñoo téye jàmmi réew mi ñu ngi leen di remercier di leen féliciter encore une fois di leen réitérer suñu engagement ci seen gannaaw muy police ak gendarmerie ak armée di ci beral nuyoo général Moussa Fall di ci beral nuyoo commissaire directeur général de la police nationale Bokar Yàgg point de presse bii nag li tax ñu gën ko woote mooy c'est un moment de célébration de la victoire de l'état de droit sur l'anarchie. C'est un moment de célébration de la victoire de l'ordre sur le chaos. Mais c'est un moment de célébration de la vérité sur le mensonge. ndax yéen ñëpp gis ngeen ni jamono yëpp am na ñoo xam ne danoo taxaw tëcc pour indi fitna indi pëccëxoo indi insurection ci Sénégal waaye sénégalais yi comprendre nañ ni njaboot jàmm mooy gën ci moom président de la république mi nga xam ni mooy ndey mbili jël disposition yëpp pour assurer sunu sécurité te li fi xew démb mooy dafa amoon ñu bëggoon jóg taal waaye ci taxawaayu dañoo dellu gannaaw dañoo sàqi ni waaye jeunes yi ne dañoo jënd glace jënd glace bi nag dégg naa ñu naan dañ leen a ñaan ak kilifa diine yi ñoo leen ñaan ak ma xam nga moom mbër bu daanoo foog mu wax li ko daaneel wut alibi kenn ñaanu leen kenn ñaanu leen danoo sàkki danoo daw comme des lâches c'est ça la vérité kilifa diine yi ñuy wax ñoo leen ñaan ñoom respecté wuñu kilifa diine yi ñoom ñooy saaga di saagalu kilifa diine yi fii ci senegal respecté wuñu kilifa diine yi respecté wuñu imaam yi te ñëpp xam nañ ni ñi di saaga kilifa diine yi di wax lu bon ci kilifa diine yi ñoom ñooñu la ñu àndal donc buñ ñu wax mukk ni kilifa diine yi ñoo leen ñaan ndax ñoom déggaluwuñu kilifa diine yi faalewuñu kilifa diine yi lijjantiwuñu kilifa diine yi ñoom seen projet bu antoo kilifa diine dootul am senegal ci loolu lañuy liggéey donc buñ ñu wax mukk ni kilifa diine yi ñoo leen ñaan dafa am lu ñu ragal moo tax ñu dellu ginnaaw te xam ni bu ñu génnoon démb dinañ xam ni bési góor a koy bay président de la république loolu dañ ko ci ndokkeel ndax la mu waxoon def na ko moom dafa ne woon li xewoon mois de mars dootul xewati Sénégal te élection yi dana am te moom dootu ci waxaat moom bu waxee ren balaa muy wax di déwén waxam bariwul bi ñuy wax naan bu jëf ji bëree moom la waaye bu wax ji bëreedu moom li mu leen waxoon moom am na mooy du fi amati gannaaw ndam loolu nga xamante ni démocratie am na ko état de droit am na ko dëgg am na ko ci kaw mensonge dégg naa benn waa joo xam ne mu ngi naan confrontation dina am et c'est pas à l'état de déterminer le moment et comment damay wax rek ne ko ñun confrontation taxu ñoo jóg ñun dañuy jóg pour liggéeyal Sénégalais yi ñun suñu yittee suñu yittee du xeex suñu yittee du taal dëkk bi ñun liggéey Sénégal moo ñu tax a jóg ñu ànd ko président de la République Macky Sall waaye nag képp koo xamante ni confrontation nga bëgg ci taal réew mi bilaay di ko am te di fi fekk lu dëgër ndax état bi du yàqoo ci Macky Sall président de la République damay faral di wax ni président Abdou Diouf ci moom laay tàmbale ñun ñëpp d'accord nañ ci ne moom toogam fii ci Sénégal liggéeyam fii ci Sénégal li ci ëpp du woon tabax ay infrastructure du woon tabax ay defar ay autoroute du woon tabax ay immeuble waaye liggéeyam ci li ci ëpp mooy li ëpp solo ci am réew mooy defar un état te def na ko dañ ko ci delloo njukkal di ko ci gërëm di ko ci sant ndax Sénégal yëpp amel nañ ko njukkal bàyyi na fi état bu dëgër boo xam ne Ablaye Wade yàqu ko te bu kenn xalaat mukk mu yàqu ci Macky Sall réew mi kenn du ko taal loolu dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp képp koo xam ne nag confrontation nga bëgg di nga ko am bu soobee yàlla ba mu doy sëkk ndax da cee am particulièrement l'agitateur da Yewwi ki mel ni ñebbi ci cin xamul fu muy toog ndax moom xam na li koy xaar et li ci kanam raw li bët xam na li koy xaar moo tax fépp fu mu dégg nii sax mën nañ ko faara rey dina fa dem ndax lii ñëw ci moom xam na ko te loolu gor su nekk ragal na ko te am na dund boo xam ne dee ko gën ñun xam nañ lu muy dund xam nañ il ne vit pas au fond de lui-même dundul moom xam na loolu on compatit en tant que góor sax ñun on compatit xam nañu dundul il a très mal il souffre waaye na ci boole yar ak teggin xam ni mënta yëngal réew mi il est trop petit pour sax trop on compatit ndax ponkal moo xamante ni da yor ñaari jeeg ñaari ñëpp dem nañ mënatoo suite boote tëj na mënatoo vidé loolu nag ngeen baal ma mais dañ koy massawu on compatit ñu ay góor lañ moo tax mu agité noonu mel ni ku dof mais on compatit réew mi daal li ma bëgg a wax encore une fois di ko baamtu mooy képp koo xam ne ak koo mën a doon yëngal réew mi mooy sa yitte ci loolu ngay jóg teg nañ ci sa bakkan te lu mu jar dinañ ko def duñ ci teg sunu bakkan yi de ñun sunu bakkan yi duñ ko teg waaye teg nañ ci sa bakkan yow mi bëgg a yëngal réew mi te fu mu yem nag neex te wax naa ni ngir jàmmi sénégalais yi ngir jàmmi sénégalais yi ngir sécurité sénégalais yi dafa am loo xamante ni buñ fa àggee tëgg ndënd ak semmiñ la war a doon neex benn naqari benn mbir mi fee ñu ñam jàmm donc chers amis comme je l'ai dit tantôt célébrez célébrons la victoire de l'état de droit sur l'anarchie célébrons la victoire de l'ordre sur le chaos célébrons la victoire de la vérité sur le mensonge Et ça, nous le devons au président de la République Macky Sall. Nous le devons à son détermination, à sa détermination. Nous le devons à son engagement pour un Sénégal stable, uni et prospère. C'est le lieu de le féliciter pour ses efforts. beneen wax bi mooy toujours ci ñi fi doon wax démb ñi nga xam ne danoo sàqi waaw bu la neexee nga ne këtt geen gi xam nga lâcheté lâcheté weesuwul di yóbbu xale yi ñu leen di rey wala ñuy xeex te yow boo sentiré tu es nga daw te li xew démb du dara mooy ils se sentaient tous menacés mënoon nañoo génn wallaay lazim mënoon ngeen a génn ngeen xool ma ne boo leen génnoon démb di ngeen xam ni bési góor a koy bay boo leen génnee suba bëgg taal réew mi di ngeen xam ni bési góor a koy bay te loo leen ñu lu mu leen jaral pour ngeen taal réew mi jaral nañu ko ñun pour ñu defar réew mi bu leen jaralee téeméeri bakken pour ngeen taal réew mi ñun jaral nañu junni bakken pour ñu pour ñu defar réew mi li am démb c'est simplement de la lacheté mois j'aurais bien di qu'ils assument leurs responsabilités pour aller jusqu'au bout de leur logique. waaye yóbbu xale yi ñu leen di gaañ ñiy reyante yéen vous sent vous vous sentez ngeen daw dugaat seen biir kër yi loolu ngeen a génn dem kenn ñaanu leen dama ni kenn ñaanu leen te lacheté weesuwul lâcheté weesuwul nga ne dangay xas wolof yi xam nañ luy xas mooy bés sàngam su ma demee guerre lii dinaa ko def dinaa dugal sama fetal ci bopp fetal bii dinaa def nii danaa def nii loolu mooy xas bu xeex di am da ngay wax ni yow bés booy xeex boo demee ca xeex ba ca xare ba lii dinaa ko def am na ko fi xasoon ne le 29 dañ koy rey wala ñu jàpp maanaam loolu daleen leen di wan rek ni nit ki maanaam lâche la c'est un lâche deretu gor nekkul ci moom man de bu ma leen nee man man Lat Diop su ma leen nee dañ may rey suba wala ñu jàpp ma dinañ ma rey suba wala ñu jàpp ma te li ma ko wax moom ne dëkk bii man lay doon wala yow wallahi la dina am koo xam ne koo xam ne yow loo wax mu dañ loolu dafa doy sëkk ci dafa doy sëkk ci nit ku am xel ak ci xelu ñi ànd ak moom nga xamante ni manipuler la leen toog nañ seen yuuri cultiver nañ haine ci seen xol yi ba gisatuñu déggatuñu ana ki fi waxoon ni Khalifa Sall day nekk candidat par force est-ce que Khalifa nekk na candidat ani ki fi waxoon ni dootuma émarger tribunal du mu ñu émarger ani ki fi waxoon ni élection du am moom moo toog démb ne élection dina am bon xam nga respecté wul nit ñi respecté wul ñi mu àndal année ki fi waxoon bërki démb ne Sénégal am na 700 détenus politiques dina ñëw ci liste bi yéen journalistes yi ki ko waxoon duy dégg ngeen 700 détenus politiques yooyu fen yi neen dafay fen ngeen baal ma ci kàddu gi dafay fen moom Ousmane Sonko laax da ngay fen 700 détenus politiques amul Sénégal ñu ngi xaar liste bi liste bi nga waxoon ni am na 700 détenus politiques yaa ko wax ñëpp di dégg 700 détenus politiques amul Sénégal da ngay fen le 29 di nga dee wala di la jàpp dangay ngay fen di nga félicité ne bàyyi nañ détenu politique yëpp da nga am fàtte danga am ñoo xam ne fàtte nga leen mooy presque plus d'une dizaine de doomu jàmbur yoo xamante ni mandat de dépôt nañ leen pour acte terroriste te ñu bokk ci yéen waa Yewwi bokk ci yéen waa Pastef ñu mandat de dépôt leen inculpé leen te cour d'assises lañ jëm te yow doo wax ci loolu la moo tax waxoo ci loolu la moo tax waxoo nañ leen bàyyi te liñ nekk yëpp yow yaa leen ci dugal waxoo ko doo ko wax parce que dañ ci ànd de la même façon ko bu ñu rayee militaire Sénégal Casamance doo ci wax parce que dañ ci ànd rebelle nga Sénégal ab sénégalais moo koy jiite koo xam ne respecté woo institution Sénégal président nga saaga sëriñ nga saaga gendarmerie nga saaga police nga saaga procureur nga saaga justice nga saaga militaire faale woo leen nga ne yow sénégalais nga nga ne yow bëgg nga Sénégal nga ne yow tu respectes les institutions de ton pays non je suis désolé réew mi ab sénégalais moo koy jiite bon temps bukki bu sàngoo daru bëy du ko jiite te li ma lay wax ci kàttanu yàlla incha allah bi iznillahi sunu kanam la ne silence total su ces jeunes qu'on a dugal leen ci ay bambinerie ay affaire u xale ndax réew mi ku ne ba nga ko bëgg taal dangay ngay nax sa bopp loolu du mën a ne liggéey la boo xam ne dafa jiitu suñu juddu ñun bu dul ñaan bi nga xamante ni suñu mag ñi bàyyi nañ ko fi waaye dafa am liggéey boo xamante ni Senghor da ko fee def Abdou Diouf def ko fi Ablaye Wade def ko fi te bu sobee yàlla incha allah du yàqoo ci président de la république Macky Sall nit ñi dinañ yaale dinañ dox seen soxla ñi war a dem tribunal dinañ dem tribunal ñi am problème ak Adji Sarr dinañ ko lijjantee ak Adji Sarr Adji Sarr sax moom dégg naa tonton la ko doon woowee waaw moom moo il il paraît que da doon wax ne da doon wax xale bi dee ma woowee tonton. yooyu yëpp ci affaire yi la bokkoon kon nag tonton beneen point bi nga xamante ni bëgg naa ko bëgg naa ko tontu beneen point bi nga xamante ni bëgg naa ko tontu mooy li ñu xam ne li nga xam ni bëgg nañ ko gëmloo Sénégal bëgg na nañ ko gëmloo waa réew mi mooy démocratie amatul senegal liberté amatul Sénégal liberté d'expression Sénégal dafa ëpp c'est ça la vérité liberté d'expression Sénégal c'est très mal encadré on va vers des dérives on les vit ces dérives la donc bu ñu kenn wax ni liberté amul Sénégal le 8 may nañ leen ñu marche place de l'obélisque def seen sitting def seen manifestation à jour boobu moom liberté amoon na liberté moom day ñàkk wala moom en fonction de li nga bëgg te li nga bëgg am na lu ko gën a lu ko ëpp doole lu gën a ñor sénégalais mooy ordre ak stabilité ak protection des biens et des personnes loolu mooy frontière liberté ku nekk fii Sénégal waaye liberté moom kenn du ne amul Sénégal kenn du ne démocratie amul ndax parti bu ne yaa ngi wax li la neex di dox li la neex élection mu ñu am Sénégal élection la ñuy fale élection la ñuy folle donc fan la manque liberté am fan la manque démocratie am Sénégal ñuy wax lu leen neex di sëlëm nit ñi di di gént donc liberté ku ne liberté amul Sénégal da ngay wax lu la neex waxoo dëgg liberté bu mat sëkk am na Sénégal ndax liberté boobu dafa jiitu président de la République te mënu ko wàññi lu dul yokk ko ndax c'est un démocratique boo xamante ni kenn mënu ko remettre en cause ak koo mana ne ndax sénégalais yi duñ ko nangu donc bu fi kenn wax waxi liberté nit ñaa ngi dem ñu ngi dikk ñu ngi wax seen xalaat ñu ngi def li leen neex dans le respect des loi et réglement de ce pays képp koo xamante ni jàll nga loi ak règlement ak yooyu dinañ fëgg sa ndundu daal loolu moo am donc waxi liberté ak démocratie nañ ko tege nële te nag débat politique bi fii la mën a tollu et c'est dommage c'est dommage débat politique bi fii la nekk léegi ay liste la ay suppléant la ay parité dugal naa góor génn naa jigéen damay dem élection non nii damaa bëgg falu damaa bëgg a nekk député way deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat waxi ñàkk fayda te kenn yóbbeewuñu si lu dul ñi nga xamante ni danoo bëgg a falu le débat est devenu stérile et malheureusement nous autres on est obligé de répondre parce que c'est un terrain boo xamante ni foofu la ñu woo te duñ leen ko bàyyil parce que am na une partie des Sénégalais ils sont friands de ces débats puérils il faut que ñuy tontu li may doon wax naan xale bu la tooñee léeg-léeg da ngay wàcc ba ci niveau duma ko yéegaat doo leen dégg mukk fii ci réew mi ñoom ñëpp laa opposition ak tonton doo leen ko dégg muk mu waxati waxi réalisation parce que xam nañ réalisation Sénégal kenn dootu ko waxati fii débat boobu kenn ñemeetu ko wax moo tax yeneen la ñuy wax ay troisième mandat dixième mandat dama ni troisième mandat bu baaxee ci réew mi na ko président de la république def il est hors de question il sera hors de question de laisser ce pays-là entre les mains de ce monsieur loolu loolu yàlla rek moo xam yàlla rek moo xam waaye ñun lépp lu mu laaj lépp lu mu laaj pour lui barrer la la route ne serait-ce que pour une pure et simple raison mooy ni du sénégalais bukki la bu sàngoo deru bëy du nu nangu fii ku dul sénégalais di jël réew mi Sénégal un fractionniste un séparatiste un rebelle qui ne du ko jiite kooku na leer ci boppam et on paiera le prix qu'il faut pour ça ñun Sénégal moo ñu gën moom lañ gën a bëgg lépp fu ñu dem dañuy ñibbi si li ñu am ñëpp Sénégal moo ñu ko jox du ñu nangu mukk di ko yàq di vendanger Sénégal duñ ko nangu donc débat politique Sénégal yéen ñëpp gis ngeen fi mu nekk léegi débat xale la malheureusement foofu lañ ñu woo fa lañ leen di fekk fi mu nekk nii boo doon wax waxee réalisation sax kenn la nangoo déglu parce que foofu c'est un train qui arrive à l'heure et les gens ne s'en occupent pas bu leen waxee lan lay wax dund gi dund gi dama ne dund gi fépp la seere ci àdduna du Sénégal kese te képp ku la wax ni mën naa def wàññi dund gi fii may wax wàññi ko de façon considérable waxul dëgg ak ku mu mën a doon muy Joe Biden ak di Macron wak du ku mu mën a doon ku leen ko wax ni mën na ko def day wax lu ko neex waaye ku leen wax ni mën naa appuyer wu ci cherté dund gi pour di politique loolu moom ku ne mën na ko ku ne mën na ko donc loolu benn point la boo xam ne bëggoon naa ci wax mooy Sénégal débat politique bi nan ko xoolaat ñun ci liggéey la ñu nekk ñu ngi liggéey Sénégal yëpp xam nañ ñu ngi liggéey moo tax opposition bëggatul wax ci affaire bilan président de la République mag sax ñemewuñu ko sax nag parce que foofu ku fa dugg daanu te nag loolu nag mooy li ëpp solo ci débat politique ndax la finalité de l'action politique c'est l'homme c'est le citoyen c'est l'être humain loolu yëpp ñu ngi koy malheureusement bëgg a fàtte loolu nañ ci indiwaat suñu xel xool li président de la République def Sénégal te dara mënu ko dindi balaa may daaneel sama kàddu mooy nañu nekk ñun ñëpp ay sentinelle de la république wan waxuma ay APR ak Benno Bokk Yaakaar république moo soxla tey Sénégal moo soxla ñu war a taxaw ñun ñëpp tem ngir waa ji ak gaañ yi doon ay bukki sangoo deru béy bañ fi am dara élection législative na ñëpp taxaw bay seen wewu tànk ngir jox président de la république majorité mu continuer liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def Sénégal ndax loolu mooy dëgg ndax leneen bu amee ñi muy arrangé mooy ñi nga xamante ne dañu dañ bëgg a indi mbii coog mballoo ak kaw ak jaxasoo ci réew mi loolu moo leen tax jóg loolu lañ bëgg tonton moom li ko tax a jóg mooy dëkk bi jaxasoo ba dossier tribunal ba réer moom loolu rek moo ko ñor donc élection yii occasion la ça n'a rien à voir ak ay troisième mandat quatrième mandat élection législative la fii la taxaw ne élection locale yi boo leen votelee Macky Sall day dem troisième mandat mais Macky moo ëppale ay voix moo ëppale ay localité APR Benno Bokk Yaakaar est-ce que tax na pour autant président ne damay def troisième mandat donc boo taxawee ne bu ñu amee majorité troisième euh, assemblée nationale waxi troisième mandat la waxoo dëgg ndax waxoon nga ko fi yow loo wax du dëgg loo wax du dëgg un vrai lâche waaye nag mooy li may faral di wax rek kéwél du tëb doom jëbbat nañu taxaw taxawal Sénégal man Sénégal moom a ñor man du du sama engagement ci li xew ci réew mi sama responsabilité la personnel réew mi kenn ëppalewu ma fi bokk maag ñi nga xamante ni dañuy raas da raas les murs ñi nga xamante dañoo tekki ci dërë bi dëkk dara ci dëkk bi président de la république jox leen ça me fait ça permet de faire le lien président de la république jox leen ay responsabilités ñu koy attaqué ñuy attaqué réew mi ñu nekk ministre nekk ay directeurs généraux nekk ay directeurs nekk ay députés nekk lu ne ci réew mi mu jox leen lu ne état bi jox leen lu ne ñu war a défendre état bi ñu ni miig noppi sama sama xaritu Benno Bokk Yaakaar yi APR lay waxal ma ne ku dugg mag mooy yëngal dëxin te ñu si bari ci ñun Macky Sall jox la leen kuddu yëngal leen loolu mooy wàllu gor rikk gars yi nanu gore rikk gars yi Macky Sall bum ñu gën a gore ndax moom moomul réew mi dafay liggéeyal réew mi dafay défendre réew mi te xeex boobu buñ ko ci bàyyi bum ci wéet ñun ñoo war a taxaw taxawaay boo xamante ni moom bu ëpp taxawaayam lay doon man mii ci loolu laa ne képp koo xamante ni leer na ma ni tu es un ennemi de la république et de l' état du Sénégal wallahi al boo tegee téeméeri bakken man dinaa teg dix mille bakken te duma la may dara parce que li ma wóor man man li ma wóor li ma wóor mooy ku mel ni Ousmane Sonko le combat c' un devoir civique le combat en plus d' être un droit c' un devoir parce que c'est un ennemi de la République c'est un menteur tartuffe anti-républicain il faut le combattre par tous les moyens je dis bien par tous les moyens tous les je les moyens je me répète tous les moyens dégg naa démb ñëw na géejawaay mais dafa làqatu waaw dégg naa démb ñëw na géejawaay mais dafa làqatu démb dégg naa ñëw na fii dafa làqatu yor fordam bu ñuul boobu yow daal booy ñëw géejawaay nañ ko yëg ñu ko yëg ñu teeru la ci lañ nekk dëkku liberté lañ nekk lay teeru waaw ñëw comme que nee nañ yaay président président de la république kañ bu ñëw dañ koy teeru booy ñëw nañ ko xam jarul làqatu bi donc mbokk yi wax ji lii rek la woon nañu gën a taxaw réew mi nañu gën a saytu réew mi ndax ñun réew mi rek ñu ñor ak képp ku ñu àndal li fi xew démb mu doon une reculade dañ ko wax sàqi daw comme des lâches détalés comme des lapins loolu moo am démb dégg naa benn waay fii ci géejawaay Macky Sall Macky Sall Macky Sall moo mu wax ne Macky Sall Macky Sall Macky mel ni Macky Sall moom ak Macky Sall la quoi yow Macky Sall bu doon wut raxaskatu douze sax du la jël daan Macky Sall Macky Sall Macky Sall bu doon wut raxaskatu douze sax raxaskatu douze palais sax tu n'es pas apte compétent pour ça nga naan Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky léegi ils sont désarmés wàllu LGBT bi ñu doon wax xam nañ ni amul du dëgg xam nañ ni du dëgg amatuñu benn moyen amatuñu benn moyen amatuñu xeex amatuñu lu ñu véhiculer du bilan du dara jullit bu mel ni président de la république Macky Sall nga koy jiiñ naan dangay bëgg ay légaliser lu mu mën a doon xam nga ni loolu waxu waxu waxu ku daanu si saret la encore une fois fi may daane lay sama kàddu mooy waa APR Benno Bokk Yaakaar ak képp ku bëgg réew mi Macky Sall jox la ay responsabilité nga tekki dara boo waxee ñu def boo teree ñu bàyyi dama ne rik nanga gore goree na nga goree na nga soo gorewul bu fekkente ni yow mënoo gore mais dangay bàyyi man taxawaay bii may taxaw su ma ko mënul woon am damay bàyyi sama deret mayu ma ko man moi man je ne lâche su ma ànd yow je ne te lâche pas donc ñi nga xamante ni président dañoo nekk ci gouvernement bi nekk ci appareil administratif bi nekk ci levier yi nga xamante ni jox nañ leen ko nañ ko jël pour défendre la cause de la république et la cause de la république aujourd'hui aujourd'hui c'est sa stabilité c'est sa stabilité encore une fois pour que les Sénégalais aient une vie paisible et harmonieuse entre loolu moo ñu soxal loolu doole jooju nañ ko def ci sénégalais yi nañ ko def ci dalu réew mi maa ngi leen di gërëm di wax ni kontaan naa trop encore une fois di remercier euh, di remercier journalistes yi nga xamante ni ñëw nañ fi jël seen temps waxtaan ak ñun waaye daal li ma mën a wax encore une fois mooy démb démocratie ak état de droit sénégalais yi am nañ ndam ci kaw yàqkat yi ñi nga xam ni confrontation confrontation moo leen tax a jóg ils seront servis loolu daal laa amoon lu may wax di leen gërëm di leen sant di leen wax ni wasalaam